euh, l'autre actualité c'est le conseil constitutionnel mais gis nga conseil constitutionnel su dee su dee rek man loi bi la euh, je loi parrainage lay appliqué ak mais procédures ñu bari ñu dem duñu jàll c'est des juges c'est c'est c'est des juges politiques mais il faut ñu ànd ak xel dal xool qu'est-ce qui peut assurer l'équilibre Aminata Touré de nee na euh, vérification euh, parrainage bi mu ngi daté ci fichier bu 2017. ba tax na nit ñu bëri dañ leen di dugal fichier bi ni gisu leen. xam nga loolu et mooy comment se fait-il que nit ñi mën a comprendre quelqu'un comme Rewmi dem parrainage am ay jafe-jafe comme Anta Babacar bon c'est juste un nom ñëw automatiquement jàll set weccan tout propre lépp tout est nickel professeur Ndiaye tout est nickel loolu. non mais ça c'est euh, pour moi d'après li ma comprendre c'est que euh, Anta elle a pris le temps de s'organiser oui mais pour la première fois nga dem parrainage ñëw sa lépp gongo ak ñoo xamante ni yàgg nañu dem ay parrainage am nañ expérience su parrainage am nañ expérience su parrainage ñu génne leen ay doublons yoo xam ne mënuñu comprendre ay nit yu am carte d'identité war a voté seen tour warul nekk ci fichier bi xam nga loolu problème bi fan lay doore mm-hmm. bu ñu demee jour élection que nekkul ci fichier bi te dañ la inscrire ci spice de parrainage normalement ça veut dire que jour vote bi problème yi dina bëri trop ñu bëri duñu voter non non y a plusieurs questions cest à lu mu def c'est un de d'essai réussi elle a réussi sàccul deful dara ba léegi on n'a pas dit lu mu def jaarul yoon. waaw moom laa wax donc elle a réussi. waaw elle a réussi mais réussitam. xam nga jaar na yoon ça n'a rien à voir avec l'échec de Idriss Seck Idriss Seck n'a pas préparé. mais comment ça il n'a pas préparé. ah mais c'est le résultat c'est-à-dire non bul dugg ci ay. non Idy c'est fois muy dara dama ni rek. c'est la quatrième fois muy def. élection présidentielle. Idy Seck dafa am expérience. ana expérience bi kon. ah il a montré ci parrainage laa wax ci en matière de parrainage. il a ana expérience il a échoué il, a de l'expérience mais il a échoué maintenant pourquoi il a échoué. C'est là le problème. Pour moi, il faut, il faut faire le, le Mais, mais le, le, fait que, non, Aminata Touré, mi nekkoon aussi mandataire euh, Aminata Touré, voilà. temps du pouvoir, génne ay information ni fichier de vérification bi date de 2017. Pourquoi ñuy wax te bañ a wax souligner loolu mu wax mais loolu moo wax aussi li mu wax dafa jara ñu taxaw seetlu ko. Bien sûr que c'est, c'est, c'est grave, c'est une atteinte grave. Elle a raison de le souligner et même peut-être sur leerul roues mu porter plainte parce que c'est pas normal conseil constitutionnel defarul fichier bi ministère de l'intérieur moom mooy defar fichier jox ko conseil constitutionnel un bon, pour revenir à, à aux droits fondamentaux cest à un Sénégalais am na carte d'identité am na carte d'électeur mu pare na Aminata Touré mu dem ci conseil conseil ne ko yow ñi nekkuñu fi mais ça si c'est une atteinte grave à un droit du, du citoyen donc il faut que le conseil prenne ses responsabilités loolu tax ma ne la sànq conseil bi dafa war a nekk serein et sage xool xoolaat lu tax loolu am si c'est vérifié comment corriger. et et, surtout un ancien ministre de l'intérieur ak li mu capitaliser ci expérience ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye moom sax dafa am ay jafe-jafe pour jàll ci parrainage. xam nga kooku kon bu jombi dem moom mooy gën a jombi ñëpp. oui non pour pour le moment pour le moment Birame ce qu'on peut retenir c'est que y a des surprises surprises yi ñaar première surprise bi mooy Anta amul ak benn expérience jàll na c'est une surprise comment elle a fait bon je ne sais pas. l'autre chose surprise c'est ñi nga xam ne ñoom ñooñu lañ doon yaakaar ñooñu lañ doon xaar. ñoom Idrissa Seck ñoom Mimi Touré et cetera et cetera ñooñu jàlluñu premier tour bi. waaw donc y' a un problème sérieux oui. bon problème sérieux bi nag y' a une responsabilité de Idrissa Seck de Aminata Touré c'est qu'ils n'ont pas bien travaillé ça il faut le reconnaître maintenant ils n'ont pas bien travaillé ils sont tombés dans le piège de la loi mais la loi elle est claire depuis 2019 c'est-à-dire que vous voulez vous allez en ordre le premier Boubacar Camara il n'a eu aucun problème parce que mënul woon am mënul am doublon interne mënul am doublon externe mais à partir du deuxième du troisième du quatrième on rentre dans la logique des des des doublons plus tu es en, au bas de l'échelle plus tu as des risques d'avoir des doublons man doyen man je parle li may wax mooy tour yi nga xamante ni fichier bi reconnaître leen man ah mais man foofu laay taxaw ñii ils ont bien travaillé moo tax ñu jàll ñii ils n'ont pas bien travaillé man duma dugg ci débat boobu parce que ñu bëri génn nañu wax ni li ñu gis ci biir dalul seen xel ay tur la ñu génne ni leen tour yi nekkul ci fichier bi te ñooñu ñëpp seeni i carte mu ngi ak ñoom seen i numéro carte d'identité ñoom moom lañu ñu enregistré seen tur bu nekkul ci fichier bi jour vote bi ñoom qu'est-ce qu'ils vont faire duñu voter parce que bi man foofu laay taxaw et sama inquiétude foofu la nekk. oui on est d'accord que c'est anormal c'est injuste mais ça ne suffit pas c'est pour ça ma ne le conseil constitutionnel c'est le seul juge actuellement ñoom ñoo war a jël seen responsabilité ne on fait parce que le am na quand même le droit et le devoir d'investiguer pour xool l'anomalie la lan moo ko indi su su ko defoon dina am correction. par par exemple ñi nga xam ne mënuñu nekk ci fichier bi am na tur ce qu'il a demandé c'est une bonne euh, solution c'est-à-dire que les gens ñi nga xam ne une ne sont pas dans le fichier qu'on les mette dans le fichier ça c'est une solution simple je pense que am na solution ah maintenant suñu toogee di xëccante bon c'est vrai que y aura pas de y aura pas de solution